maa ngi lay nuyu di la Xaadim maa ngi lay fay di la delloo ziar di nuyu mbokku internetu kat appuis yëpp mooy ni ma koy waxee saa su nekk ñi nekk ci biir réew mi at ñi nekk bitim réew ñëpp ñu ngi leen di ku ci nekk fekk fi nga nekk na la jàpp loxo Xaadim foofu lay profité vraiment di naqarlu di am naqar at tiis vraiment ci li nga xam ne moo fi xew muy sunu papa Gaston ki nga xam ne pratiquement ñun tey sunu dundu bu amee njëriñ da ci da cee joué. une grande partition vraiment quelqu'un ki nga xam ne tey ci Sénégal mun naa wax ni tey liggéeyam am na njëriñ ci Sénégal dundam gi mu doon dund ci Sénégal amoon na fi njëriñ koo xam ne tey mun naa wax ni du ma wax làmb rek mais monde sport bi at Sénégal ñëpp perte koo xam ne tey ah, ca la mu nekkoon góor góorlu woon na ci ba fexe cee mën mën ci ba pare yaatal ko ubbeeku wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla yàlla na suuf sedd ci kawam di ko ñaanal yàlla fi mu jëm yàlla na jóge yàlla na gën fi mu jóge di ko ñaanal yàlla xare ko ci àjjana yu gën a kawe muy Père Gaston mooy koo xam ne tey euh, kenn dootu ko fàtt ci histoire Sénégal ci histoire làmb tey chaque jour su may wax ni làmb dafa war a am musée parce que ñu mel ni Gaston ñu mel ni ñoom Yékini ñoom Tafa Gueye ñoom Mor Fadam ñoom Mbaye Guèye seen histoire xale yii di ñëw ci kanam ñu bañ ko fàtte ñoom Balla Gaye ñoom ñoom Modou ñoom Franc ñoom Sa Thiès Ama Baldé ñooñu nga xam ne tey euh, am na lu ñu def ci Sénégal si làmb tey war nañu mën a am foo xam ne benn bibliothèque wala musée boo xam ne tey làmb moo koy moom le musée de la lutte bu ko defee dinañ ci jàngal yu mel ni ñu mel ni Gaston ñu mel ni Serigne Modou Niang ñu mel ni Alioune mbay Petit mbay ñu mel ni Luc Nicolaï ñu mel ni yenn ñi nga xam ni tey am na lu ñu représenté ci société bi am na lu ñu defal seen réew ndaw yi di ñëw ñu bañ ko fàtte moo tax vraiment tey li xew ñëpp perte vraiment ñu koy ñaanal yàlla encore une fois yàlla xare ko ci àjjana yu gën a kaw amiin Balla yal na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana fi fi mu jëm gënal ko fi mu jógee mais a wax ci Père Gaston na bëri na parce que Gaston pratiquement bëri na sama combat yi mu tëgg nekkoon na nit koo xam ne donc wax dëgg yàlla bu ngeen signé contrat bu ngeen xasee ba signé contrat doo musa am xel ñaar ne dina la desal wala dina la dina la dina la dina la amel au contraire da lay da lay da lay da lay fay ba pare may la wala mu jàppale la du dëgg nit la woon koo xam ne nit ku dëggu la woon dëggam du ko fanaan loo àll fu mu fekk dëgg fa la koy bàyyi donc nit la koo xam ne ci liggéey professionnalisme am at euh, bëri xam-xamam den doon na poussé vraiment yow mbër mi sax ngay am ambition yoo xam ne sax oh ëpp na la doole par exemple da nga nekk ak garçon di liggéey ak moom rek da doon tax vraiment nga am confiance de soi parce que dangay xam ne ki nga ko seqal du warkat du wax lu dul dëgg te lu mu la wax loolu lay def kon anecdote yu bari mun naa ko mun naa ko posé ci kalaaf bi euh, ba ma bëreek bàcc seeraas ba pare euh, bëreeg Boy Sey waroon bëreeg Jos vraiment sama combat ak bàcc seeraas doo doo doyalu ci woon vraiment mu buggoon ñu ma bëreewaat at bàcc seeraas ba ma nangulee ba ma ba ma ko ne daal man daal fu mu ne nii buuse maakala rend rek jéggi waaw daf ma ne daf ma ne Balla yow daal defe naa ni. Euh, sa am xaalis ci làmb bëggoo ko carrière nga bëgg mais buggoo am xaalis te effectivement ba nga demee boo demee ba ci biir ci koy ci ngay comprendre le vrai sens du business de Gaston parce que tey bu ñuy wax lutte business defe naa ni Gaston tey am na rôle bu bëri bu mu ci joué par rapport ak euh, diggante ak Tyson tey tey digganteem ak mbër yu bëri nga xam ne tey jaare nañ fa am teraanga ci mën a déglu Gaston ci mën a topp Gaston vraiment mën a def carrière bu rafet. su ma la laajoon su ma la su ma ñaari jukko yu la gën a marqué ci moom ci Berger Song lan ñaari yan ñaari jikko nga may mooy euh, du fëkk jëf at mën a wax dëgg ku mu mënti doon amul ku mu ragal a wax dëgg ñaari jukko yooyu moom neex na ma trop si Gaston waaw. macha allah am na solo su ma juumul su ma juumul Balla Gaston 1998 la commencé commencé làmb tëgg ñoom euh, ñoom ñoom euh, tubaabu joor mbër yu mag yooyu noonu tëgg ay Mor Fadam. ñoom Yékini tey ba ci génération bu bees bi ñoom Balla Gaye ñoom kii macha allah defal xale yu doomu jàmbur yu bëri ci Sénégal ba tey yàlla def mu génn àdduna mais tamit demeewul noonu ndax bàyyi na fi ram koo xamante ni yaakaar naa mën na place am muy Makan jël relève bi yaakaar naa kon kon Makan am na sax ci côté boobu. mais je pense que Gaston mooy làmb je pense que mérité na tey ñun monde làmb ñu xalaat vraiment ñu mel ni Gaston euh, arène nationale bi amagul tour pense que. même bu dul arène nationale ñu tuddee ko loo xam ne tey ci làmb kenn dootu ko fàtte parce que liggéey na ko fi te mérité na ko tey dem na mais xel dal na ndax ki mu fi bàyyi mate na ko muy makan ñu gis ni démb journée bi mu tëgg gis nga nu mel euh, mu coïncider at même jour bi nga xam ne moom la papam dëddu kon loolu dafa am ay message at ay yoo xam ne ci àdduna mooy ki dem dem na yàlla jël na ko mais ki mu fi bàyyi mate na li mu doon te wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla aussi yàlla taxawu ko yàlla dëgëral ko yàlla aar ko ba nga xam ne lépp li nga xam ne papam defoon na ko fi mu def lu tolloog noonu wala lu ko ëpp di ko profité di ko di ko jaale waale. macha allah liggéey ba toll fii mu jël ko teg ko ci loxoom moo tamit ko war na war na def lu kenn la ba suy dem tamit mu am mu bàyyi fi eh, li nga xam ne mooy patrimoine boobu gas Père Gaston bàyyee ko. waaw mooy héritage bi boo xoolee gason tey liggéey bi mu liggéey at ni mu toll. at euh, daye bi at histoire bi tey mu jël mu jël ku mel ni Makan jox ko ko Gaston ku xam mën a liggéeyam ku xam nangu liggéeyam tey du dënk liggéeyam koo xam ne ab yaafus la du dénk koo xam ne liggéeyam leer na ko ne kii mënu ko matale tey mu jël Makan jox ko ko te boobu ba léegi bi ñu ngi gis Makan ci làmb ji boobu ba léegi wax dëgg yàlla fii papam taxawoon rek la taxaw te tey euh, Makan un plus bi muy amené tey ci li nga xam ne moom la papam liggéeyoon mooy touche intellectuelle bi donc touche intellectuelle bi aussi donc ça joue beaucoup donc kon mun nañ wax ni xel mun na dal héritage garçon tey euh, du réer parce que ki ñu dénk puso bi euh, du ko réeral waaw te da ko war a teg ci yeneen loxo donc macha allah macha allah macha allah donc di ko ñaanal yàlla yàlla gën ko aar gën ko taxawu ci làmb gi nga xam ne. macha allah am na solo bala fa ñu jaaree dugg ci waxtaan bi euh, mu nekkoon combat bi amoon démb arène nationale Franc ak Bombardier noo gisee démb ñaari mbëri physiquement lu ñu indi ci ci combat bi. non ku waxal yàlla rek wax dëgg wax dëgg yàlla ñaari mbër yi démb man Bombardier forme bi mu indi démb gis naa ko gis ci moom forme physique. laay wax bi mu indi démb gëj naa ko gis ci moom bombardier boo xoolee yaram bi démb lépp dafa dafa dafa musculé dafa dafa jàpp ba niin gëj nañ gis forme bombardier gëj yor forme bu mel noonu ñu gis Franc wax tamit wax dëgg yàlla ku wax rek gis Franc combat yi nga xam ne moom la mujjee bëre yëpp ba agsi ci combat bi combat boo ci gis rek euh, gis nga Franc mu am benn évolution gis nga Franc mu am lu mu yokk kon tey Franc aussi forme bi mu indi ci làmb ji macha allah parce que forme bi ànd naag puissance ànd naag doole ànd naag masse ba pare ànd naag rapidité rapidité parce que tey lépp lu ma doon wax ci avant combat bi mooy combat Franc lépp lu muy def il a mu gaaw lépp lu muy def il a mu gaaw et il a intérêt respecté euh, bombardier te warul ñëw di xeex ak moom xeexu falaa falaa yàlla def na ni moom li mu bëggoon sax avant mu koy wut bombardier defal nag ko mooy tey ñëw rek màmm ci kaw Franc tey loolu mooy erreur bu fatal bu Bombardier def at poids bi mu yor age bu mu yor war a topp xale bëgg a dàkkanteeg moom di ko dóor loolu mooy erreur monumentale bi nga xam ne moom la Bombardier commettre ci combat bi parce que tey man yaakaaroon naa ni Bombardier at expérience maturité bi mu am ci làmb tey bu ñëwee dina déglu Franc du jéem a wuti dara mais tey xam nga tey mbër bu meree mere mbër ci ber gembu par exemple toujours day conduire mbër à l'erreur tey loolu moo poussé Bombardier tey mu mu mu mu mu mu màmm ci kaw Franc Franc tamit ci rapidité am ci mën a bëreem at am doole tamit ci combat bi mu mën a vraiment bëreeg moom ci biir bëre parce que ba mu jëlee ko dafa daw jàpp ko Bombardier bu ko mbaar mu génn Bombardier fàqat ko waaw Bombardier bëgg ko fàqat mu daw bàyyi ko bàyyi koog vide bi Bombardier rëpp. mu arbitre bi sifflé sax boo gisee àggali na combat bi parce que fa mu jàppoon ci ngomb bi ba bàyyi ko vide ba Bombardier jógee foofu la jargadul ku waat këcc ko mu wàcc àggali mu wàcc pay loolu moo indi blessure Bombardier bi di félicité Franc di wax ni démb bëri na bëri mag bëri na bëri champion bëri na bëre boo xam ne wax dëgg yàlla kenn xaaru ko woon ci moom donc di ko féliciter di ko ñaanal une très bonne continuation di wane ni rek làmb ji li mi ngi jël beneen tournure mi ngi am yeneen visage xale yi ñu ngi wane seen bopp donc macha allah tey boo xoolee tey ci histoire làmb rëg-rëg at at franc rek ñoo daan bombardier avec la manière ñoo ko daan parce que boo xoolee mooy li ma doon wax bu yàgg rek mbëru bëri simple yi bu ñu fekk seen mbëri dóor yi dinañ leen sonal trop tey xoolal surtout ñu mën a xeex teg si tey boo xoolee jëli bi rëg-rëg daan bombardier kenn mosu ko ko daan tey ku xool tamit waaw ku xool tamit jël bi Franc daan bombardier ci ci ci ci soiru làmb kenn mosu ko ko kenn mosu ko ko daan te bombardier boo xoolee dafa décidé woon démb ci combat bi pour daan la woon lañu wax dafa décidé woon pour duma combat pour pour euh, Franc corriger ko loolu la décidé woon loolu nag mooy erreur monumentale bi parce que boo nekkee mag am yenn âge yi yor yenn poids yi am na combat yoo xam ne da nga dafa am noo koy aborder da ngay ndoxtu xale bi ndax ko mu ñëw ut si dara wala xale bi ñëw màmm sa kaw mais mag bu màmmee ci kaw xale xale boo am doole te gaaw puissant franchement mën a bëri teg si souvent nii rek lay demee quoi parce que yow doo doo am sa équilibre à 100 pour cent par rapport ak sa âge sa poids donc mi ngi noonu bombardier tamit wax dëgg yàlla lu nit mën a wax dañ koy félicité moom mu am défaite am victoire yëpp man personnellement dama koy félicité parce que champion la boo xam ne musul wane ñàkk jom musul yàq làmb tey bu ko neexoon mu ñëw ba une semaine combat déclaré déclaré blessure wala leneen ak leneen musul wane yaafus musul wane musul yàq làmb kon te gis nañ carrière bu énorme bi Bombardier def bu immense loo xam ne yombatul sax mbër def ko donc ñu ngi koy félicité di ko ñaanal yàlla yàlla blessure bi mu am ci wér te puis tamit mu xoolaat revoiraat carrière am si ça peut continuer ou Euh, mu bàyyi benn yoon mooy gën ci moom parce que li mu liggéey lépp lu rafet ci àdduna je pense que mu bañ ko yàq mais loolu euh, dernier mot bi ci moom lay jóge mais ñun en tant que analyste rek gis nañ ni war na revoiraat carrière am xoolaat euh, est-ce que war na mën a continuer waat ak ci yenn condition yenn yenn yenn yenn raison lay lay lay lay continuer waat parce que nii bu continuer franchement li mu jot a liggéey lu rafet yëpp dina xaw a ah, suulu. mais mel ne dem Franc ci combat bi il a bien fait de bañ a topp Bombardier ci xeex xeex bu désordonné boobu mu ko doon mu ko doon woo. waaw il bien fait parce que tey boo xoolee bo Franc li mu def rek la mënoon def parce que ponkal bu mam ma ñëw sa kaw at ay coup dem jàppi ko bëreek moom rek nga mën boo ko bëggee arrêté wala nga daw génn géew bi donc li mu def noonu rek la mënoon def parce que Bombardier démb kenn xaarul woon arbitre sifflé rek. mu maam ma dem ci kaw Franc man pour man dina ko yoot ndoxtu ko wàcc diri jëm ci kawam ka waaw xaar ko déglu ko xool Franc lan la indi mais dégluwul Franc xoolu Franc lan la indi xoolu ko sax baat bi ne pire la jee gëj a xam lan moo xew ci làmb ji tey rek ma rey ko. donc loolu erreur la yoo xam ne boo bu ma la joxee exemple ñi ko fi def ñëpp Malick Niang ba mu ko defee ci amaa gis nga nu mu demee ñu ko fi def ñëpp noonu la demee parce que yenn allure yoo xam ne boo ko boo koy attaqué mbër daanaka dootoo ànd ak sa yenn moyen sa mel ne moyen résistance doo mun a ànd ak sa xel parce que yow li ngay def rek loolu ngay gis donc loolu tamit ay erreur la yoo xam ne souvent sportif yi ñu ngi koy commettre souvent nag c'est par rapport ak euh, sañ a xal yi wala tey parce que boo xoolee euh, Franc dafa défier Bombardier te Bombardier kenn mësu ko défier ni ko Franc défier daan ko donc voilà donc défier bu défiance bi ko Franc défier mu bëggoon ko ñëw corriger ci làmb ji mais il l'a entamé avec une très mauvaise manière. Mm-hmm. Sakhla Diaw boobu boobu dafa war a arrêté fii carrière am a mën a amaat beneen combat soo ko bàyyi. waa man sama xalaat mooy li ma wax sànq rek le dernier mot le revient parce que ba muy dugg ci làmb tàggawul kenn kon du man Balla Diouf may taxaw ne ko na bàyyi làmb man dana na revoiraat carrière am xoolaat. ay possibilité am at ay capacité am bu fekkee ni permettre na ko mu mën a dem loolu moom moo décision bi moom moo koy jël mais ñun tey bu ñu sañoon ah, sunu xel bu gàtt ak li nga xam ne fekkee nañ ko ci bombardier xam ko ci histoire am tey bu ñu toogoon day mu def mu toogaat def autocritique xoolaat ndax li jar na muy continuer wala jar na muy xooli leneen. Mhm. Mhm. kon loolu moo bi daal dañu moom la revenir. moom lay revenir waaw. incha allah merci. jërëjëf Xaadim jaajëf di rafetluwaat waxtaan bi encore une fois di di jaale monde làmb yëpp Père Gasson. merci am na solo jaajëf Bal.